asalaamaaleykum gan ñëw na ne leen ko bisimilah. gis nga Rahim ni ñu koy gisee noonu ni mu baaxee. bu la wanee ginnaaw wan na la ginnaaw. Aziz de chauffeur la la booleel mu lay topp foo mënti dugg mu dugg fa loo def si journée bi yëpp H24 da koy wax. jongom ma ju dal. dégg li tey mhm. ne teg. ma lii da laa bëgg dégg ba xam ne góor laa yor. sëy boo xam ne te yàq sama diggante ak yàlla est-ce que sëy na sa jabar nag maanaam ki la yaa Allah booleel pour nga mottali sa yi nekk diffusée sa kese je vais être bref Fatima dina porter plainte à Je vais te dire